waa asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Modou jaw nekk conseiller municipal ci commune Thiès Ouest bokk ci commission environnement ñoo ngi fii à Mbour 4 dafa am problème bu ñu fi signalé woon askan wi yëpp génn muy lu metti ndax benn poulailler ak tool boo xam ne moo fi nekk borom di dugal ay euh, fumier ci biir fumier bi nag moo sonal ñi nekk fii yëpp ba démb ba léegi mën nañu wax ni kenn noyiwul te ñun moom li ñu war mooy fu ñu toll bu problème amee ñu ñëw wala sax bala poroblème di am ñuy gëstu lan moo war a jur problème ñu jéem ci indi saafara ndax ku xam monsieur le maire docteur Mamadou jiite ci euh, loolu rek lay dox mooy cadre de vie te kenn ku nekk xam na ni poulailler ci koñ moom euh, ak cadre de vie mënta nekk seen xale yaa ngi war a xëy jàngi asthmatique yaa ngi fi ñeneen ak ñeneen a ngi fi ñi am allergie ñoo ngi fi Euh, moo taxoon ñu jàmbat ko wooñu ñu ñëw en même temps ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal ndax woo nañu presse bi woo nañu sous-préfet wax nañ ma ni sous-préfet woo na borom tool bi wala préfet woo na borom tool bi ni ko arrêtel kon loolu euh, acte bu rafet la ñu ngi ciy sant préfet comme ñi ko woo ñoom ñi ko woo aussi tamit ñu ngi leen di sant parce que dëkk bi moom lii rek moo koy defar kenn ku ci nekk yaay xool li nga xam ni day yàq nga teel ko euh, dénoncer li nga xam ni day defar lang ci man nga def ko ci xam naa ñu koy tàmbalee ci monsieur le maire di ko wax ni poulailler yu mel nii ci biir koñ euh, nañ ci jël ay mesures ak direction direction de l'environnement ak préfet ak sous-préfet yëpp parce que poulailler moom ci àll la daan nekk dafa am norme yoo xamante ni moo koy composé ba nga xam ni moo war a tax mu nekk waaw ñu ngi sant nag euh, bi nga xamante ni préfet woote na ba jot borom mu ne ko arrêté naa ñoo xool nag bu nekkee arrêté na baax na bu arrêté wul tamit am na leneen lu ci war ñu liñ ci war mooy ñëw taxaw ci wetu askan wi bokk ko ak ñoom parce que ci koñ bi lañ dëkk xet gi day ñëw ba suñu kër maanaam niñ fi soree ñun sore nañu lool mais xet gi day ñëw ba suñu koñ bu ko daal loolu moo taxoon ñu ànd ak euh, conseillère Adama Sambura ak Mouhamed Samb bokk ci euh, commission de l'environnement bi ak waa koñ bi yëpp ñoom Ousmane ak ñëpp loolu moo taxoon ñuy yëkkati kàddu yi daal salaamaaleykum wa rahmatulah. donc wax naa ko euh, am nañu am allergie man mi dama am allergie médecin bi def ni ma ay xeetu ginaar ak xeetu kiiw ak yooyu yëpp gisoo ma takk masque nii maa ngi naan garab yoo xamante ni euh, lu cher laa ko jënde traitement laay def te loolu ñu bare la dal li des mooy xale yi ndaw yi asthmatique yooyu yëpp daal day indi euh, ñàkk wér maanaam day yàq wér yaram gi waaw. bi ci des itam mooy mën na indi insécurité surtout ndax kii bu arrêté wul waa koñ bi mën nañu màbb ci kawam te bu boobaa tamit man kenn du xam lan lay jur waaw. Euh, ñu gis ne quartier bi aussi euh, yàgg nañu gis ay euh, poulailler ci gox bi partout avant ñu ciy dëkk de de présentement gis nañ ne nit ñaa ngi ci mën a dëkk ñu ngi ciy commencé dëkk poulailler naam ñu ngi fi jusqu'à présent est-ce que san ne sera pas difficile jóge jëlee fi poulailler yooyu. ah moo tax ma adressé ko euh, autorités yi tàmbalee ko ci monsieur le maire sous préfet préfet parce que ñoom seen compétent la ñun liñ ci man rek mooy ñu gis ni ma ngi yàq ñu daal di leen koy den wax ñu taxaw ci quoi waaw. kon donc su nekkee ne euh, fu mu toll nii dem nañ ba dindiwuñ ko ci ñu continuer déjà présentement ñu ngi dëgg tracteur di riir ci biir mel ni day maasale su nekkee ne dem na ba euh, askan bi sentiraat li nga xam ne mooy odeur bi ana ban mooy nekk seen taxawaay. waaw service d'hygiène mi ngi fi maire bi mi ngi fi ñoom am nañu service yoo xam ne pour loolu la li ñu bi ma parce man bi ma kii woowee dama ne ko bàyyil bu 6 heures ma ñëw ñu dem ci biir tool bi waxtaan ak borom tool bi parce que am loo xam ne war nañ ko mën a régler avant ñun ñuy dem di sore daal waaw léegi nag euh, ñi waxtaan nañoo moom en même ñoom def nañ ci ay jéego te mooy comme wax nañ ni sous préfet ñëw na fi euh, kon loolu dèjà ñoom ñoo ngi ciy sore waaw parce que ñun lii rek lañ ci mën léegi nak bu passé fi ah ñu dem mairie waaw ñoom accompagner ñu dem service d'hygiène xam nañu ñoom fi ñuy jaar. Bon, le quartier Mbourkat, euh, on, était, on vient d'être signalé qu'il y avait des camions qui amenaient des déchets euh, d'êtres humains au niveau d'un jardin qui se trouve euh, à proximité du quartier. Euh, pour être précis, à, à l'intérieur, au centre même du quartier Mourkat. plus précisément dans le quartier Mbour 3. Donc, euh, on vient d'adresser directement la parole au délégué de quartier de 3, qui à son niveau aussi délégué de quartier, le chef, euh, le délégué de quartier de qui était là. Donc, euh, après notre passage aussi, on vient d'être signalé que le préfet aussi a fait aussi son intervention. donc, nous étant membres de la commission environnement, près de la population de habitant habitants à Mboukat, et on est aussi ressenti comme tout le monde euh, de ce qu'a senti euh, comme l'odeur. Donc euh, moi j'habite à peine 30 mètres ou 40 à peu près 40 mètres de ce, milieu. Donc j'ai même senti les mêmes odeurs que tout le monde a pu sentir. Donc, cause pour laquelle moi, je me demandais, cette odeur-là venait d'où Moi, je pensais qu'à côté de la bourse là-bas. Mais après, on me dit non, c'est vers l'église. Donc, tout à fait, j'ai appelé mon président de la commission environnement dit il y a quelque chose qui nous, empêchait vraiment de, respirer. Voilà, donc euh, il paraît que ça fait trois jours de temps, les gens ne pourraient même pas manger, ne pourraient même pas dormir, surtout euh, ceux qui sont prêts même. Donc est-ce qu'on euh, ne pourra pas aller voir réellement ce qui se passe au niveau de là-bas Donc notre venue, notre c'est pour aller discuter avec le propriétaire même. on a trouvé qu'ils ont fermé l'endroit. Et voilà, donc euh, on vient, on a trouvé la peste, euh, donc on a eu les renseignements par rapport à ça avec euh, les populations riveraines qui nous ont expliqué de tout ce qui est passé. Donc on fait appel à les autorités compétentes à cette, disformation cette ou bien à cette injustice qui se fait dans le quartier, de prendre leurs responsabilités et d'essayer de le régler. Parce que comme vous voyez présentement, le quartier s'est établi il y a tellement de, maisons maintenant. Donc euh, presque euh, là où il y a le poulailler là, c'est au centre même du quartier. Donc ce n'est pas la forêt. C'est totalement euh, loin de la forêt aussi. Donc comme vous voyez, il y a le culte qui est là tout près, l'église. Est-ce qu'eux aussi sont contents à cela Et c'était un jour de dimanche, et c'était un jour aussi de prière. Donc avec ça, on a reçu des appels passe-partout qui plaignent de, cela. Mhm. Donc on dit que comme c'est notre devoir. Donc la première des choses, c'est aller euh, discuter avec le propriétaire et aller vraiment montrer nos mécontentements. Donc c'est cause pour laquelle euh, on a pu euh, engager la presse, comme vous le disiez, pour vraiment montrer notre mécontentement par rapport à ce qui se passe ici.